soo publicité gaawal gaaw nga woote ci numéro bi 77 254 84 39. Gouma TV, Gouma TV, Gouma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble. xam nga daaw wax sama papa. soose ab soose ab soose mos a ñëw. waxal ak man fii waxi nit waxal ak sama papa. waaw soose bi yóbbu sa bagage yi laa la ko gën a wax. dégg ma waxi na dama joxe dem bu gunóor. Hmm? lanu gunóor. ah waaw yow. yaa ma sa gis bagage yi yaa ko gis. am na gis naa gis naa ko. waxal man fii sama papa la wax. munoo wax ak moom mu maye ma ku fii dikk mu koy santaas. waaw man dama laa bëgg a tegal benn sart. sartu lan sart boo xam ne. toi et moi ñu lëmurante te ma ak yow bu ñu lëmurante bu ko defee képp ku fu ñëw. eh xaaral laa yow xool nga ah yow jomboo ma de jomboo ma de. nga <laughs> ma de góor laa de góor laa de. la ma sama ko nag waaye ñëwaat xam nga yow man ak yow suñu waxtaan du mën a neex. lu tax dama ne la nga waxtaan ak sam papa. Eh? pour mu maye ma mu dem sëyi bàyyi nit ñi muy. sant ay ça

yow yaa xam lu ma wax yow. waaw man maa ngi dégg li may wax bii nee na bii boo ko laa naanee. sa taat yi dana gën a rëy waaw. ah mais de boo ta. ah mu tëdd. ah mu lekk ko. Nena Mureba. Mureba pare. Du la ilaha mu juróom. Cheikh Bara góor la góor la. ñetti fan wax nga wax la. parce que Serigne Bamba bu ma maa ngi wax. waaw. ah booy booy wax rek bu laal weer yi. bii ay la. mu ma bu cagaana yow ne maa ngi ko doog. maanaam da nga bëgg wax sama ween moom bu ko man gis naa xam naa ne ndawut xam naa ndawut moom. yow ko gisee xam naa ah. <laughs> dama lay daan yor dama daan yor sama loo yaa ko jaay kon. maa ngi loo ba yaa ko jaay yow kii muuma la dinaa la wax nga jaay Ndeye Yacine Seck. kii muuma dina xam muuma waaw waaw xam na ko lool jeeg gi jeeg gi ñu leen bëgg. jeeg gi ñu yow. kaay ma may la kaay ma may la kaay ma may la bii. amoo xaalis. tey jaay daa daa. ah loolu de dina xaw a compliqué moom dëgg yàlla. mais ah. amoo bi non man ñun ñun la koy maye du xaalis yow xaalis. xaalis xaalis non non non non. du xaalis. xaaral ma woo kilifa gi ma wax la lim la koy maye. ñu bu ko defee ñu expliqué la kii bi cas bi. wuy ma ah. ana nga. ay ñoom ab muuma lañ ci daal la tey vous avez la parole de muuma ah. loolu daal muuma moo fi ñëw. lu mu moom lu mu bëgg. ah day jaay ay réel ak ndawal. Ah, ak funkil waaw mooy yooyu lu baax ci jeeg ji rek. ay ay ah, la la boo ci yaa. Ah, eh, da nga wax moom day jaay rek jaay rek moo fi indi woon ah. jarang moo la fi indi maa bëgg yaa ne ndaa bëgg ndaa bëgg bi waaw bi yow ba waaw man ma déet laaj mam kii kii laaj ma xaalis xaalis noonu déet déet déet déet déet aywa bëgg naa ah bëgg naa ah nga léegi mu wax waaw bëgg na ko wala bëgg naa kay. yow du bañu mana man banyak bañu iya, kenn. Iya, banyak bëy banyak bañu. Iya, bañu dong laa bañ. Lagi. Ki. léegi. Nalam yow. naa la mbal de. xam naa yow Diwer. ngi liggéey yaa ngi liggéey di Ki. di wër ah déedéet déedéet ato amut kër tëdd. ah déedéet yow baax. baax bi kii baax ah, boo xamee nag baaxam te kii karaw karaw. karaw. karaw mu noqon ah, karaw karaw karaw ah, karaw kuk papa. kii muuma la jërul wax yow yëpp may ma ko ma dem benn yoon. déggul li ngay wax yow kii ke defal ndànk man samay sànq laa doxal man yow yaa bëgg sëy sam xànq daa yow laaju la yow yaa bëgg sa gi xam xam kan laa lay may waaye da nga xam man règlement laay la la la la la la la li ngay wax mu mën a li waaye mën na bu la yóbbu si kër mën na laa bañ a muñal kii de caam jarut carton déggul lay jaay la jox la jox juróom. lan moo fukk juróom fukk ak juróom nee na may la fukk ak juróom. fukk ak juróom ay gàddi ay fukk juróom. fukk ak juróom. kaay nii kaay nii awaay gaale. ma ne ma ne yow kii bu demee kii ma ne sigil di gaale waaw. Ah, ndax bul fee. buddi. ah bii. Ah, waaw waaw ah bayak bii baax. déedéet déedéet. benn baax na. bii baax na ci yow karaw gii duñ ko buddi gi ci suuf lañu. bii bii benn la. Ah, waaye bëgguñu boobu. ñun bii la bii baax ma poqataani bii ba ba na. déedéet du ma ko may. voilà ñoom ñaam carton. arbitre arbitre carton. son wan ko waaw kay. waaw boo jooyee. abay bu demee. waaw. mais lii. mu soxoon nga gën gën dem si. ba ba bëgg ba. bëgg nga. xoolal. ci mbalut yàlla ba ma nekk amut de. waaw. mais. <laughs> Eh, waaw mu ngi dëgg na fi de. ah gugu moo bee moo bee ñeme yàlla mu ne ah ay toog bii nii ah, ah, ah maa ngi budd sa toog ah, ah. laay la yow taxawal ne kii buddi nañ ko ba mu jeex may ma dootu yow ma xool ko superviseur hmm? buusu dugal de dugal dugal jege ko jege ko ndax ma am fu xànq dama ne hmm? ñun ba duñ ci am gatcha ba duñ ko buddi fi mudé Menang man kay loolu la xalaat ni buddi rek la ngay def kii mu ma Menang man naa ko buddi yow la ngay yedd man Menang ko sëyal man ta Menang tax may kii sëñ Menang ma ma dem sëy man loolu sama sama sama man sama ordre bop la ordre bi may def mhm. man xamna ban ordre man na la jox xaalis nga Menang ko man xaalis ñaat ñi ñëw ñaat ñi ñëw fi ñëw pour xaalis li nga wax ni fu mu mo wi dafa jaxla ma ngi wir wir kenn xamul ñu wax léegi nak dañuy def moy bal ñu buddu ko fuk bu maté nga dem fuk mu matee bu matee fukk bu matee nga yóbbu kenn du la nax billahi barki téere maam ya kenn du la ba ba ba ba du yewe nga buddeeti waaw ñu ngi buddeeti aca buddi leen rek da nga jar buddi nag yow yow buddi juróom wala Ben, juróom ya ya ah bo yow da ba de am Ben, ben ben ben Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben, Ben

Ah, ada ah, sih juga, wah, wah, ah, sangkan wah, ya, ka na man. Ah, yeah, yeah. Eh, eh, ah, ah, iya, iya. iya, di eh, nah, eh nah. darus, darus ya. Lu ya aku mun ya. Ah, yeah, yeah. Eh, karaw yu dey. Dey dey juga juga juga juga. Ni ya ya aku mun. Gamban mu di ba? Asa aku ka ren. Ko na. Dey, no no. Mun eh. Ka agale. Na. Ndaw si ma go. Ndaw si. Uy ma. Ya eh. Mu ma. Kay jox ma garab yi ko. Garab yi garab yi mu ma. wuy ma wuy ma am nañ fayu yàlla de mooy bi wax na. wax na wax na wax na am nañ fayu yàlla de. wuyu ma fii waaw man léegi man maay takk sama bagage dem ba ki sama nijaay bu may ma man ma dem sëy damaa doyoo sëkk sëkk sëkk ci kër gi. dama dem kër naa feebar. yow kër gi yow dama laa ngi daaw maa la ngi daaw ci kër gi yow maa la maa la maa la yóbbu Casamance ma amul problème. Eh, man pour ku rafet bu may dóor dama am plaisir mu may lii boo nangu woon boo nangu woon a sëy boo nangu woon a sëy ba nga nekk ah lii lépp doo ko am. <laughs> Eh, nga dugal ah. ci biir dugal ci biir. ci am amukaat ku gis sa yaay amukaat moom la. kii de ku gis yaay mi yoon doo raadu taxawal ne taxawal ne. <laughs> sonn naa ah, maanaam ruus naa la. ma zone la ba pare àbb sab carton zone ruus la ko yow. xam nga xam nga xam baa xam nga projet bi dina yàqu. projet bi bu yàqoo yow yaa ko ndax yow man li lay sant normal nga dundee da nga dund seeram normal. man yow yow mi yow yow yow ni ngay buddee gars yi xanaa xamoo baaxul. yow ni may buddi moo baax. yow ni ngay buddee damaa damaa damaa bëgg bu ma dee buddi. ah waaw man damaa bëgg bu ma dee buddi. nga gegel ma taat pourtant maa ngi dégg taat yi de. déggoo taat bi. yow yaa ne ma bu la bu la nee tuubu fee nga jëm. non nga koy da nga koy ah, kon ba prochain mois ma ma. waaw ah, waaw moom moo gën nag. a kii. annulé naa kii kii bi. waaw rouge ah. ma. aw xew bu ma jëm. xew kan la kay fan la <laughs> Ibra Diop. ah Ibra doom ja ak kii jabar jaamandoo 32 seex. ah ah loolu de baax na. ma ne loolu de baax na. 32 ah waa baax na. Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble.